kon na eh sëñ Askia euh, dama koy jox kàddu gi rek bu ko defee nga wax yëg-yëg bi nga xam ni yëg nga ko yëg-yëg bi nga yëg ak sa digganteeg sëriñ bi sa digganteeg sëñ Saliou ak ni sëriñ Saliou bëggee woon ko màggale nii nga defe ko nii leen li ci des nag moom xéewal sëñ bee rek kon bismillah alaaja Askia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 gërëmaat yàlla ba mu ñu defee taalibe Sëriñ Touba ma di gërëm yàlla yit nag ba sama wàcc waay ci sëriñ bi bunt bi ci sëriñ bi di sëriñ Saliou ndax sëriñ Saliou moo ñu jàngal lu ñuy màggale ndax doomu sëriñ doomu sëriñ Saliou moo ñu xamal ne màggal feet la benn yoon de la feet mosa am ci wàllu diine ci lislaam mooy keroog bi yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam demee julli ji it ñëw yàlla jël ibrahima ñu ne ko ñu wax ko waxam jooju ba xol ba ñax-ñax mu ne ko inna a'tinaka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar ne ko ndawtale naa la sootul kawsar te sëriñ Tuubaa dafa doon Seydina Muhammad ci nekk yii dafay ñëw ci moom directement yii day ñëw ci kuñ koy donale wala kuñ koy tuddale wala kuñ koy féetale sëñ Mbàkke murit mais sama dooma di nitu xam-xam comme ful la su di dox doo ndax xam xam li mu xam mooy kan ndax dënn ba la cee riir yaatu nee naa la sànq wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa li mu wax rek la xam li mu xam rek la wax wante màggal gi xanaa su dul dara xanaa su dul dara dara dara dara ñu war a déglu a war a ànd ak sëriñ bi ci màggal gi si irxam jami al waraa mu ne nag war a ànd ak man si irham jami al yaa hadiya rada boobu mu ne lépp lu ma yàlla fayeeg sama màggal gi ñoo koy bokk waxu dam lay may di dafa ne ñooy bokk xanaa kan moo gën a baax sëñ bi ma daal bëgg naa cee tàbbi tàbbi goo xam ni kenn du ci tàbbi nu ñu mel ndax keroog bi sëriñ bi di dem lëndëm na palanteer yi dajjeeku nañ ni ñu tiit nañu jaaxle nañu bàyyi na ñenn ci ci jiixi jaaxi ñenn ñi nekk nañ ci fitna ñenn ñi kontaan nañu nag te dem nga waaw ñenn ñi kontaan nañu ñenn yi ñeewantal nañ ko mu wane ginnaawam jël njabootam gi dëkk maam Cerno Biram Daaru maam maam Cerno Biram Daaru keroog keroog keroog keroog keroog keroog sëñ bi eh, wét na wét na njaarim teqale ke ku nekk bàyyi la ñu ne ko looy def mu ne xanaa jublu ci suñu borom bii rek nee naa fi démb ci benn site ne keroog yi nga ko def yëpp dafay metti ba soo koy nettali sax da ngay sa xel su xalaatee la da ngay bëgg sëñ mu Muntaxa sëñ mu doon wax da ngay bëgg jël xaa bëgg dekkalaatal xeex ndax daa méttit ka ak la ca nekk mais sëñ bi am jom rek te bi muy leen géej jàll dégg nga ko mbóotoo am baqara ak Ali dénk na ko mbootu Baqar ak Ali ne su ko jëfoo dara ko jot mu ne mu rus nekk ci ay tolluwaay ak la ma sama borom di sukkandiku benn ci kàddu di si si ma yàlla jox di xettali sama bopp déedéet damay bàyyi sama bopp ak yàlla rek xanaa inna laa ma ma asaabirin boobu ngay dégg ci alxuraan xanaa moom moo ko moom moom dama ci muñ kenn muñul moo rek a muñ mm-hmm. eh moom moom rabbana la tajal naa fitnatan dafa bàyyi boppam ak yàlla rek lillazina kafaru dafa bàyyi yàlla rek dafa bàyyi boppam te te ku mos a jaaxle rek woo nga suñu borom ku mos a nekk si jafe-jafe woo nga suñu borom wante moom daal waajuram ju baax jooju soxna jaaritulaa nee na ko jas fañ ko tegoon na ko jógal liggéey keneen dikkaatul nag xanaa yée ko yent bi saa nag maa ngi la yëgée ne yii mi ngi bëgg a xew suba moom xibaar yi mu doon am yi yi doon jóge ci moom moo tax mu way ko way wuréy wa moo tax mooy Seydina Muhammad wayam wuréy boobu di ko wax si jës bu ah, ah, ne ne ne ko yow yaay sama informateur gis nga yi ngeen def ni yore xibaar yi di ko wax nii yonent bi salaa digganteem ak ak Serigne Touba ci yoon bi da ko doon xibaar rek bu ko dimbale nag eh Ahmadou ah ah dina am luy bëgg ñëw de te su ñëwee dina metti de mu ne ko mën attan naa ko teg ma nañ ma ko teg la ndax Ahmadou léegi mi ngi bëgg a ñëw de mu ne ko nee naa la fekkee ni sama buru gi yàlla mën nga ma ko téye attan naa ko teg ma ko rek te nag xam nga yàlla wax na laay kiraa fi diine wax naa ko démb yàlla wax na ni xatta ah, ah, ah, bayna rusdi min al ayyi fa man yakfur bi taawuti wa yuminu billahi faqad istamsaka bi rurti lusqa laa anfisama laha wallahu la wante xam nga loolu li am solo ko nangoo gi sëñ bi nangoo yenu lii bi mu yenoo yen gi la ko njëkk daal ah, mooy julli géej gi tubaab bi def na ko yow kat amoo droit julli sama gaal hmm. ay na raxay jiisul mais def na ko yow mi yow laay waxal amoo droit julli sama jàkk ji sama sama hmm. jaat ji ndax fii ñu jullee kat dañ fi tuur yooyu ngeen di bañ de xam da nga ne eh, seen lislaam sax ànd ak taxara afi sànn nañ fa loo xam ne soo fi jullee xam nga ne jaaduwul hmm. ndax yooyu ñu jëfoo xam nga ne àndul ak diine hmm. laa yemusu ilal mu taxaroon ci alxuraan te yaa ngi ko yor hmm. bi da ko nag ah dafa jot de da nga wax lan wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun a ah, léegi da nga ñuy wan nag axrifuni qabla an ta'budun la ñu bëgg nga wan ñu bi nga tubaab bi ni muy déggee da ko soñ sëriñ sëriñ bi ne ñaadam ñaadam lam ci gisee yaa di taxaw ci catu gaal bi xool gaal bi xool géej ne ci xel mi man du ma jaamu yàlla xel mi ne ko ahankañ mu waxtu yàlla xel mi ne ko ahankañ mais géej gi du géeju yàlla ko ahankañ julli gi du julli yàlla bi nga xam ne caas bi sànni ko ne ci ne cëpp ci géej gi du baatin tolluwaayam na ci yàlla dafa bëri jom mais soo bëree jom foo ñaan am bis yu mel nii te sëñ bi nag dafa tànn ñu am jom ñu koy defal bisam bi yàlla na ci sëriñ Sall boole ñu am jom bis bii ah faaw nga am fit am jom pour mën ko def ndax dañu natt nag yax yàlla nee na nee na alif lam mim xasiba naas yow da nga yaakaar ni yow ah ah yonent bi salaa salaam dama la jox te du ma la nattu si ne daal sëriñ bi ndax ko sëriñ bi da nga yaakaar ni ah, il xam jamin awara bi balaa ma koy nangu du ma la nattu dama la koy nattu nattu gi mooy yi xew yi rek nattu googu bi muy bi muy ñëwee ñibbisee nag ndeysaan sëñ Mourou Moussa ci baax ga doon na màggal nag ñibbisi ka wante sëñ Fallou Mbacke ci sañ-sañ ba ak ak kii ba moo wëlbati bis bi ah def ko bis bii ñaar yëpp baax bu jëkk bee soo fanaanee daal xuddoos tuubaa gii yàlla dina la fegal dina la dina la muccal si si safara te dina la fàggul àjjal màggal ko mag yi ñuy wax nii mu daal xuddoos gi xam ne ñaar fukki fan ak ndàngam ndàngam soo fanaanee tuubaa rek am li nga bëgg wala nga am yéene pour dem wala nga génn ne man damaa ngi dem si yoon bi te mënumaa dem di gàntal di nga am nga am yoon gii nag yoonu fayef sëñ bi ne sa màggal gii hmm. nee na ah, par la ma yàlla di fay ilaa jëlal moo sam aw daa axarte ni ilaa jëlal moo sam kon yàlla su la dimbalee ba boole la ca ca ca ñooño ah, da gërëm yàlla sëriñ Saaliw nag yal yàlla dolli jàmm ak leer ak may ak yërmande ak mbaax ca moom ndax ah, nit ki su la wanee lu nekkam yow nga won ko sa lu nekk mu xamal la lu nekk nga xam ne ëppante ngeen lu nekk di ngolof hmm, dégg naa li nga wax. Bamba ñëpp ñëpp baax nañu. olof Njaay dafa ni bi ñu naan baax bu nekk. gën dafa sori bi gën ñooy baax rek lu baax nañu nag. da nga dégg ñu ni ñu ne Isa ku baax la. Hmm. Ibrahima ku baax a baax la. Hmm. Lóot ku baax la. Moussa ku baax la. wante gën si yonent bi sa asama la am. loolu moo dal sëñ bi nekk sëñ bi loolu la doon ci Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu neex mu naqari. ngoone googu indi lii. bés bu jot rek. Hmm. muy gën a jaljal yi ah, ba àddina tukki ndox ba nga xamee ni. Ah. tàbbi nañ ci tey dimbali nañ ñi ah, man nag. Hmm. nee naa démb ginnaaw waajur sa waajur da jur wutal la wutal la yàlla da lay wutal waajur wala ak day ju baax jaxate yére yàlla ko yàlla doole yërëm te boole ko si njaboot yi nga xam ne kawe na leen ci àjjana yàlla dimbale la may la Abdoulahi muy sa baay ñu jàngal la yar la jàngal la diine teg la fi ñu la war a teg. nga ñëw ci sëriñ Sall nag mu mu wan la loo xam ni bët du ko bët du ko gis. def ci yow loo xam ni koo xam ñu procuré woon jëf ñu màggal de kon bu la yaa ngi màggal sa màggal man daal ku gars dee wax may jëf rek. Ah, waaw waaw ci refaa nee na ah doom ah nañ dem ba bi nekk benn ba yàlla bàyyi <laughs> wax fay jëf. Hmm. man damay jëf rek te yoonu sëriñ Tuubaa gi faaw mu am ay buru yàgg na. doon leen wax ni day saxaat du tàkk tàkk na su jol jolee ñu ne non léegi mu fay mais day continuer di fay dafay dafa am ay dafa am ay soldaaram yoo xam ne ay ay xisbu laa ay xisbu ay xisbu yoo xam ne ah dañuy dañuy dañuy dañuy taxaw temb ngir yoon bi dox màggal gii nag lam ca ñu ngi ciy góorgóorlu ndax kat feet moom feet rek la feet rek mais lu tax lu choisir façon bi nga ko gën a teel a defee xanaa xanaa gis naa ni bu nekkee ci baas bi sax ku de bi ma nar a ku nar a wax nga ni nañ jàng xasay nañ jàngal xuraan. yàlla dafa ni yàlla dafa ni innahu la quraanul karim fii kitaabul maknuun yàlla wax ne alxuraan gi su ma ko tiimaleen la wan zana hadal alxuraan la wax. ala jabalin la raaytahu xaasian mutasallimin asad la te xam nga lu ko indi wallaahu lazi laa ilaaha illaa huwa alimul xaybi ko indi. ak wallaahu xaaliqul baariqu ndax loolu la ñuy yóbbaale bii woo bu njëkk bi bee sooy sooy génn àdduna nga koy wax ñaari woo yooyu nag su dajee ci yow ci diggante bi loola war rek mooy jël jox ko mu jafe la nga jox ko sëriñ bi ndax nee na attan ndax sëriñ bi soo dafa ne zimaamul waraa ñëpp lañ ko jox yee yàlla na man yàlla man jox ruu yi yëpp lañ ma jox yu baax ni defar ba wax jox ko yàlla mooy diggante ak suñu borom moo moo moom garaat boobu garaat googu mooy garaat Xaadimu Rasuul te kat dafa ni irham jami a wara ne yàlla e xoolal diw yàlla kii su la tooñee ba nga koy ba nga ko bëgg duma yokk du yokk dara si yow du wàññi dara si yow su la liggéeyee lee lu baax ba nga koy bëgg dugal si àjjina du yokk dara si yow du wàññi si yow waaye yow baal ko nag xanaa sa xel dem si wa wa kaana xaq nasru alayna muminin Eh, yàlla sëñ bi day wax lu bare bare yoo xam ne day dem ci day jëm ci lu yërëm doomu aadama sëñ Sall dana wax naan Sallaw de ah ginnaaw yàlla gis ma ku ma ëpp yërëm ma ne man Saliou si jaar waaye yooyu amatul yooyu dafa jeex te am yoo xam ni ah ku sa siyee la na nga fexe ba ñu tuddale benn tur ñu koy wax loolu jeex na bi tey yii wa gis bi wa inni Saliou loolu jeex na doon